loolu di yomb bu daa ngay sin doole ñoom ñaar ñu nga ca du gaaw du gaaw parce que usine ndeysaan combat du gaaw benn yoon Njaay dafa tardé ñaaxar ndeysaan gisul lay jongama nga ñaar jumbu nga ndeysaan ñu doole ndeysaan bu daa nga ñoom ñaar asalaamaaleykum jërëngeen jëf mbokk yi ñu siiw ci Wassare Lamb jël na ko ndeysaan jël na ko jël na ko oh mu daa Usine Doole daan na ko Usine Doole daan na Mbulaay nga ndeysaan noonu leer na ndeysaan ñu ko jël Serigne Ndiaye mooy bëre noonu premier combat am nekk ndeysaan ci combat yi Serigne Ndiaye numéro 2 ndeysaan moom moom mu war a faas mais li bi ne de li bi yeri ndeysaan da ngay orienté ba sonn du yomb du yomb mukk benn yoon ndeysaan Serigne Ndiaye numéro 2 ñu nekk ci àll bi rek ndeysaan ñu ngi noonu moom Serigne Ndiaye numéro 2 ñu ngi taxante ak moom rek ndeysaan mu ngi noonu dem nañ mi temps ba ñëw Serigne Ndiaye ak boobi seen combat bi dafa yàgg mais Serigne Ndiaye ndànk defal ndànk rek ñu ngi ñëw sama kaw lañ jëm si ñoom ñooñu ndeysaan moom Serigne Ndiaye bu koy buux ko jaay doole xoolal doo ko bu koy buux ko jaay doole ndeysaan da koy puus rek da ko remplacé na ko remplacé na ko da ko bëgg a génne ndeysaan mu jaay doole moom Serigne Ndiaye numéro ndeysaan Moustapha daanu na Moustapha Bakhoum Serigne Ndiaye numéro 2 moo ko daan par décision arbitre gis ngeen ko noonu mbaar na ko Ibou Ndiaye na ko Ibou Ndiaye na ko Ibou na ko o oh, doole doxul jàmm Ibou Ndiaye daan na ko doole doxul jàmm Ibou Ndiaye na ko da lay loolu leer na ndeysaan sama doom baay daan nañ ko sama doom baay daan nañ ko loolu leer na baay daan na sama doomu baay waaye yaa xoolal ma lii yaa xoolal ma lii Aliou bi ngay ñëw ndeysaan gis bëre ba doyal bu ko songale ndeysaan jël bëre na daan na ko jël ba rëy na daan na ko ndeysaan jarul laajte Sélé moo nekk noonu ndeysaan Sélé Mélé xale boobu moo waree campement moom Sélé moo nekk noonu ndeysaan xool ko mu ngay jaay maa la ko wax jaayil boobu neex la yaa tey oh, Sélé waay Sélé ngoog ndeysaan moom Sélé Sele Ngom ndeysaan da koo mbett ndeysaan Boy Faye koy oñ doole doxul jàmm Boy Faye daan na ko Franc noonu ndeysaan mooy bëre noonu takk na takk na ko takk na ngi tàllal loxo Franc mu ngi jàpp na ci jàpp na ci Senghor Franc bi ndeysaan jàpp na ci ni mu takk ci ndig ni loxo bi ci tànk bi kon jàpp na ko boot boot mi ngi naxante eh sukar bi daan na la maa la ko wax Franc daan na ko loolu leer na Siré ngi koy nax ndeysaan ci yeel yi la bëgg a dugg ca tànkee la soxla ngir jàpp dafa ngir jàpp dalay tuur dalay tuur caxabal roof daan waaw waaw leer na sëriñ daan na ko ndeysaan sëriñ Njaay daan na mbay bi boo ko sañ ndeysaan ak Siaka Fall ñoo nekk noonu ci poids léger waale sa bangoog ndeysaan Djibo Kor ak Siaka Fall ñooñu xamante nañu ndax ñoo bokk mbuur ñaar ñooñu fi leen ci àll bi Djibo Kor bu leen fàtte ne moo demal drapeau sa loolu daa demal waa Thiès Siaka dëkk mbuur kon xamante nañ ndeysaan bu ma sa yow ñaar ñooñu lee cee xiif boo ko tuddee Siyaa Ka Ngoogu Ahmed Ba ngay wax ak ñoom Ngoogu ndeysaan mu ngay jóg Siyaa Ka Ngoogu ndeysaan mu ngay jóg Dibokor a ngoog rek la tekk ndeysaan xool leen Dibokor mu ngi noonu moom Dibokor ndeysaan jàpp ndigale Dibokor a ngoog Yiwi Diouf ndeysaan Ibi Ndiaye Diofior moo nekk noonu. xale bi juddoo Diofior ndeysaan moo nekk noonu. Book Seras ñooy bëre noonu. ñu ci combat yi ñoom ñoo ñu ñu nga noonu ñoom ñaar ñaari ndaanaan nañ ko bàyyi du ma lay yomb du ma sa yomb ndeysaan ñoom ñoo ñu lee déggal ma Ndeye Fatou moom mi doon Adama Diallo ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar ñoo ñu lee ndeysaan ñoom ñoo ñu lee ñoom ñaar saas ndeysaan ak yi bu gars yi ba léegi ndeysaan ñëwaat nañu bi taan nañ ba ñëw Ousmane Sass ñoo xam ni Sass ndeysaan Sass waaye bi na koy yëkk ci turi Sass rek la ñuy wax ak Ibou Ndiaye bu Diofior ñu ngi noonu ndeysaan போட்டு போய் accéléré ndeysaan Ousmane Saas Saas ak bu Njaay bu Diofior mbot deuxième pied mbot na ko mbot bi rëy na ndeysaan mbot bi rëy na ñu ko dee na ndeysaan ñu nga noonu Ibou Ndiaye koy fàqet Ibou daan na ko loolu leer na Ibou Ndiaye daan na ko daan na ko pare jéggi ko ndeysaan Ibou Ndiaye daan na ko pare jéggi ko ñu oh, daan na Ndiagar Ndiagar daan na Boy Faye jëli leer na dina ko yëkkati ma loolu leer na ndeysaan ordinateur ndeysaan mooy bëre noonu ak Saliou Diomaye Diouf ñu gën ko xam ci usine doole mais gis naa fi revanche ndeysaan diggante Serigne Ndiaye ak Fara loolu revanche la parce que 10 daaloon ndeysaan sàcc mbay sele mele oh ba bàyyi ci géew bi a neex ñu ngi noonu ordi ak usine doole Saliou Diomaye Diouf Zil Doole ndeysaan sàcc mbay selemele ñoo nekk ci ginnaaw ñoom ñaar Serigne Ndiaye numéro 2 Franc ñooy préparé noonu loolu ay combat mbokki Lac Rose TV sama copain Ndiaye tey ñëwul ndeysaan Cheikh Faye moo nekk ci caméra bi nekk ci micro bi maam góor Ordu daan na ko ndeysaan Ordu daan na ko Ordu daan na usine Ordu daan na ko ndeysaan oo naanaanu lamb Bourak Kounta Kounta Kounta Bourak Kounta ci mbay Sélé le combat jinne yi loolu combat jinne laa ko tudde ndeysaan saa ci mbay Sélé le Sélé ne ndégal ma ordinaire ci bopp bi la borom ñaaxar moo nekk noonu moom ordinateur Serigne Ndiaye numéro 2 Koriande Thiaré sama yaram a ngi bëgg a tàng ndeysaan dégg ngeen ma loolu ndeysaan baa ngoog Franc ndeysaan ak Serigne Ndiaye numéro 2 tey ñetti lang amu fi ñaari lang moo fi am wolof beeg séeréer bi borom français jala xaadi ñëwul mais su ma neexee ma ne man Soyez les bienvenus à Niakhar ndeysaan c'est entre qui et qui entre Franc et Serigne Ndiaye numéro 2 Sélé Mélé Sathie Mbaye le combat des jinne jinne nag laa loolu jaaxal na ma ndeysaan jinne ni ñu ko waxee en xanaa ma laaj ko sama professeur ba te lycée Valdiodio Ndiaye jàppante ne ñun ndeysaan Franc Serigne Ndiaye numéro 2. Sele Mele Sa ci mbay. dalay jël eh, daan na Franc Franc daanu na Serigne Ndiaye daan na Franc. Ndiaye plaqué na Franc na ko Franc na mu dajale daan na ko daan na loolu leer na arbitre bi soufflé na ñu toll ci quart de finale yi kon Boy Faye ordinateur ñoo nekk noonu Serigne Ndiaye kon num tuuti Birame Bissine Birame Bissine oh poussière ba Biram Bisin Ibou Ndiaye Diofior Ibou Ndiaye dafa mel ni daan na Biram Bisin su ma juumul arbitre lan la wax maa la ko wax daan na ko Ibou Ndiaye daan na ko ordinateur ñu ñëw ci ordinateur ak Boy Faye ci ñaaxar di du yomb ndeysaan ñoom ñaar dégg nga loolu eh! Boy Faye Boy Faye Boy Faye Boy Faye ordinateur Boy Faye Boy Faye ordi Boy Faye ordi Boy Faye ordi ordi ordi na ko wet Boy Faye ordi ordi ordi féete na ko wet Boy Faye ordi ordi féete na ko wet ngoobu na ko rek na du ko ba moom ordi Boy Faye ordinateur wër na ko ndombo Boy Faye ordinateur Boy Faye nga koy jàpp ci wet gi Boy Faye ordinateur wëlbatiku na da koy daan eh! Boy Faye daan na ordinateur ordinateur daan na Boy Faye Boy Faye ordinateur daan na ko ordi na ko fair play ordi na ko ordi na ko leer na ordi na ko Boy Faye nangul Orné ngoogu ndeysaan ñu ñëw ci combat yi combat yaa ngoogu ndeysaan Bouba Asra Longoni Orné ngi yëngal Ñaaxar ndeysaan dëkkam la nekk mu ngi noonu ndeysaan moom ordinateur ñoo ci combat bi ndeysaan diggante Déthié ak Libidor Déthié ak Libidor Libidor Déthié Libidor ak Déthié ndeysaan ñoo nekk noonu def leen ni Boy Faye ak ak ak ak ndeysaan Boy Faye Orné ngi wax ak moom Orné ngi wax ak moom ndeysaan eh, ko wax Libidor daan na ko Libidor daan na ko loolu leer na Libidor daan na dëcc ndeysaan nee na dafa am doole moom Libidor xoolal ma Bilaay dafa am doole ndeysaan moom Libidor mu ngi noonu moom Libidor arbitre bi soufflé na ndeysaan diggante Sélé ak Serigne Ndiaye numéro 2 Sélé lañ jàkkaarloo Serigne Ndiaye moo ñu woon ginnaaw ci quart de finale yi boobu moo doon ci quart de finale poids lourd yi ordinateur daan na Boy Faye Béthie ndeysaan Libidor daan na ko Ibu Njaay Jofior ndeysaan daan Biram Bisin ko kon Serigne Ndiaye numéro 2 Sele Mele mbëru campement bi ndeysaan moom moomu la ak mbëru ñoom ñaar ñoo daje. quart de finale ndeysaan moo nekk noonu. loolu doy na ndeysaan. il est une heure moins vingt-sept ci Niakhar ndeysaan. ñu toll ci quart de finale yi dernier combat bi noonu selemele Serigne Ndiaye numéro 2 Serigne yee ngi ne copp rek ndeysaan ngi ne tekk rek ndeysaan di déglu sele ay ta combat ya ndeysaan ñoom ñoo ñu lee c'est le Serigne Ndiaye numéro 2 combat technique la ndeysaan combat ay technicien la ñu déggal ma sunu yaay ndey faatu ndeysaan fam ko jëmale mu ngi koy waxe ni ko neexee ak ni mu ko bëggee déggal ma loolu nekk ci combat ba léegi rek combat technique du ma gaaw te yaakaar naa genn jàpp lay am ak genn song Sélé wàcc na ndeysaan ba ca suuf comme ni mu ko neexee Malick Ndiaye mi ci Lac Rose sa maa ngi noonu wàcc na ba ni mu ko moom Malick Serigne Ndiaye mu ngi na tekk rek ndeysaan di déglu Sélé Mélé Serigne Ndiaye numéro 2 Sélé ah Daba mot na ci combat yi ndeysaan Serigne Ndiaye numéro 2 Sélémélé fa supporter ka o démarré fa manqué déggal ma ko ndeysaan Serigne Ndiaye numéro 2 Sélé Mélé Sélé ndeysaan dugal na loxo mais mënul jàpp ngemb li dafa dijji maa la ko wax ñu nga ca ndeysaan mu ngi xañ Serigne Ndiaye jàpp Serigne Ndiaye tegal na ko teg pied bi rek pied droit bi ñu ko jéem a fàdd mbaa dina numéro 2 tegal na ko pied bi rek ndeysaan di ko moytu da ko bëgg a pàdd Sélé Ndiaye Sélé Mélé mi ngi da lay jël ndànk ndànk ñu nga ca ndeysaan ñoom ñoo ñu leen ñoom ñaar ndeysaan mais nangu wuñu c'est le maire Serigne Ndiaye numéro

moom it doon Adama Jali ndeysaan moom moom mu le di yeewoo ci Kaolack laa ilaaha illallaah Siaka daan nañ ko gaaw na loolu doy na waar Siaka daanu na demi-finale poids léger sit sit bi garaaw na mu ngi noonu ndeysaan demi final pour ALC bi Mamoul Zidane moo nekk noonu moo ñu woon ginnaaw noonu moom Mamoul Zidane beneen mbër bi ndeysaan damaa dem di ko laajte mais gars yi nanguñ ma parce que dañoo yaakaar dama koy fas lamba ngoog lamba jee toll foofu déggal leen ma loolu lumière laa doon daw ndeysaan ba dugg fii mais ñu nga ca ndeysaan dalay takk takk na ko maamu takk na maamu takk na dalay sukar bi eh, maamu si daan daan na maamu si daan daan na ko daan na demi final kon maamu si daan dem na final ordinateur Serigne Ndiaye Ordu sàcc na tànku Serigne Ndiaye ba ordinateur sàcc na a ñaari ndaanaan lañ ubi Niang koy faxat eh daan na ko lolu leer na kat abi leer na rebal ñu ngi noonu ndeysaan combat yi final bi ordinateur Ibou ndjay Ndiaye yor jàppante nañu ñom ñaar digënd ordi ak Ibou ndjay yor Diofior eh. ordinateur daan na Ibou Ndiaye ordi lan lay def nii ordinateur moo nekk noonu ordi lan lay noonu jot na mu ngay rëdd jot na moom ordi gis ngeen ko ordi nekk noonu ndeysaan xool leen ko moom ordinateur